salaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi kon nag comme ni ngeen ko gisee woon boobu ba léegi rek dañuy doxantu saa su ne di fas yéene euh, tase li nga xamante ne moom moo di ay soxna ñu ñu raconté nag seen i parcours mais boo leen ma gisee da ngeen di gis vraiment benn style bu fun bu relax laa def parce que ki ma seet si xale la moo tax ma def sama relax ñu def sunu ay yëf très simple juste rek pour waxtaanee ginnaaw xale la jàpp leen ni soxna la itam ndax mi ngi nekk ci bu mu sëy waaye teewul aussi am na njaboot mais teewul mi ngi entreprendre maanaam ibbi na nag ñaari bërëb bërëb yoo xamante ne euh, ci wàllu jigéen la waaye li ñu ci gën a jaaxal tey mooy ay jigéen rek ci nekk te moom muy xale di jigéen moom itam ñu fas yéene waxtaan ak moom ngir mu raconter ñu tuuti li nga xamante ne moom moo di parcours am juste pour vous dire tey ñi ngi dugg ci domaine beauté kon nag li ñuy def rek dañu àndandoo dalal madame Tall Awa Mballo <laughs> bonjour bonjour alors Awa noo def ça va très bien cool waa ni nga jongoma eh, yow topp sa ginnaaw rek <laughs> nu Sénégal njaay yéen a ngeen gàcce nga laama la leen di njukkale ndax yéen a ngi liggéey bu baax a baax di seeni askan ndax xam ngeen léegi ne jamono changé na bu góor taxaw alors Awa Mballo madame Tall c'est euh, une euh, dama nekk benn xale boo xamante ni damaa jàng droit mooy mhm. yoon. Mhm. ma xëy suba décidé euh, dem ci beneen domaine. moo tax ma créé li ñuy woowee Amfa Beauty. Mhm. Amfa au total ci nombre d'employés yu ñu am je pense que mët nañ une vingtaine. ñu ma am chance nag di sant yàlla bu baax parce que yàlla daf ma may ay emploi yoo xamante ni am na ci ñoo xamante ni sax ñoo ma mag mais jox nañ ma respect bi la xamante ni moo war mhm. bay faciliter liggéey bi la xamante ni ñu ngi koy def euh, fii nii et macha allah dellu sant yàlla encore suñu am benn problème et sa se passe très bien am fa bi ma koy créer dafa doon loo xamante ni dama tukki woon ànd ak sama rakk bu jigéen mhm. euh, bi ñu tukkiwee ma yoroon cent mille ak man ma ne ko mille bi de bëgg naa ci liggéey dara mhm. ma ne ko te comme dama bàyyi li ma doon def mhm. parce que dama bëggoon exercer en tant que notaire ma bàyyi ko ma ne ko il faut que ma wut occupation donc damay créer site de vente en ligne mais léegi nañ dem ñu jënd ci ay parfum bu ñu ñëwee ni jaayaat ko suñu ay mag léegi noonu la commencé ma jënd ay parfum jaay ko sama ay mag après xaalis boobu ma jël ko jëndaat ci yeneen parfum jaayaat ko jaayaat leen ko ba tey jii ñoo ngi am pas numéro 2 di xaar yeneen tamit yuy ñëw incha allah. Euh, li may wax saa su ne. mooy famille dafa doon lu am importance donc mm-hmm. man sama famille ça passera toujours. avant tout. donc euh, damay yeewu suba teel bon damay jaay patron nag damay xëy 10 heures <laughs> le temps de toppatoo xale yi toppatoo sama jëkkër. ñu dem uh-huh. mën a dem liggéey man ma dem moo tax sama salon 10 heures lay des fois 11 heures. léegi euh, bu ma paree maa ci salon bi. Uh-huh. man bi may def liggéey bi bi may dugg ci entrepreneuriat c'était pour am temps wu toppatoo sama kër. parce que liggéey bi ma doon def dama doon teela dem guddee ñibbisi. donc du coup ça n'allait pas avec une vie de famille looloo taxoon dugg ci entrepreneuriat ma ne voilà je ne le fais pas pour être riche mais au moins je le fais pour avoir du temps donc dama koy def pour am temps pour sama sama jëkkër ak sama ay doom. donc damay teel a dem bàyyi fi bàyyi fi gars yi ñoom dañuy gérer bu baax. pour man jigéen bu fekkee jàppalewul moroomu jigéenam du ñu avance. parce que déjà on est dans un. monde où les gens nous voient en bas. Mhm. mais pour ñu mën a nekk en haut il faut qu'on soit soudé. Mhm. et bu ñu soudéwee day def ni day yomb daal affaire bi dafay évident dafay yomb te dañuy mën a. upgrade yeah. tous ensemble <laughs> comme j'aime le dire uh-huh. euh, mu doon lu am importance parce que Sénégal amuñu notion boobu boo waxee da nga naan du ma wax sama yëf parce que uh-huh. nit dafay kii kii dafay def lii non on doit en parler tu as projet nga wax ko ak sa xarit wala nga wax ko ak sa sœur wala nga wax ko ak sa cousine wala nga wax ko ak sa ay employé uh-huh. ñu jox la seen ay idée nga jël ko mu nekk projet bu mag donc nëbbatu bi xam nga ñooñu na ñuy bàyyi daal <laughs>